bu ñu paree ci yu mel nii ñu toog waxtaan bu ñu demee beneen kenn ñëw ñu waxtaan. moo tax tey bi ñu ma moo tax bi ñu waxee keroog nii dañuy renouveler affaire bi mu doon affaire boo xam ne lu ma rafetlu la gars yëpp koo wax mu sawar ci lool lool lool lool affaire bu rafet la nga xool caméra waaw. seulement dañ dañ di ñaana ñi affaire bi bu ñu sañoon moom du yem fii di ñaanal président Ablaye parce que li muy def ci koñ bi tamit macha allah yàlla rek moo tax ñuy wax sunu frère du affaire bi du tey man dama dama dama ko doon jàppale avant lii di am. wëlbatiku sa suñu waajur mu nga ca kër ga yàlla na ko yàlla guddal fanam moo ñu wax tuuti woo moom ma ñëw mu ne ma kii seen frère la te leen ko jàppale avant boobu sax fekk na man ma nekk ci seulement nag ñun dafa am noo xam ne dañu ko ko mais Ablaye moom bayaal moom ku ko xam ku ko xam bu wootee bula la bu la newul kaay bu la nee kaay tamit da war a ñëw waaw franchement suñu frère la nekk ci koñ bi macha allah dañ koy ñaanal guddi fan ak wér moo xam ne mu bëgg nag ah ak entreprise yi ah, ak nga xam ne moom projet yi moom nga xam ne ki la naan yàlla ko yàlla sotti loolu lañ ko ñaanal. Wolof Njaay di wax ni am na loo xamante ne par des fois nga yaakaar ni sens la mais mérite lay doon waaw man na maa teel a dàq école sama deux la bàyyee mais fu mu sànni jàng ba yenn heure yi ba yenn foofu ba yenn benn instant bi laay dañ ko gis mu retiré wu dem ubbi ay kayam di jàng xam nga bu ñu musaan di di ji ah bu dul dimanche wala samedi doo ko si gis. bu ñu mosaan di dem ci dugg si yeneen di di yu bëri bari ah bu dul heure heure heure heure heure weekend doo ko si gis kon nag par des nit ki am dara mais def ci boole tamit mérite quoi vraiment li mu am da kaa mérito waa pare nag oyof gi laa biir bi seen kër ñun fa fan daan defee lépp fan daan baale fan daan fan daan defee lépp lépp lépp suñu daayira yeeg lépp fa lañ ko daan defee kon tey ji daa mel ni affaire bi daa wëññeekuwaat rek lu nekkoon xale rek daa di ñëwaat mu organisation yi lépp mu laaj ko sa musaan di organiser bu ñu gaay organiser ma ne eh gars yi def la kan def nangam mais c'est le seul ko xamantene moy wax ni non bu len def dara lepp ma dama koy gérer. kon nak du question que amna tay ji wala tay ji touram àgg na foo xamante ni ñun ñi sa yaakaaruñ ko won mu mu aj bagam non non man mi di Modou Modou wala man mi maggi bi peut-être ñu accu ñu bagga te yor ñu dara ah mais mom depuis ba mi xalé ba légui ah vraiment vraiment dara changé wu si moom dara changé wu si euh santé yalla julli si yonent bi sallallahu alayhi wasallam donc euh, maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xamanteni tay ño tew fi euh surtout nag jiital si euh, nos anciens suñu mag nek euh, ci koñ bi donc tay euh man chaque fois bu ma taxawee gis leen sama gannaaw sama xel day dal donc tay ñu initier li donc chaque li man c'est une surprise donc tay ce sont mes amis d'enfance mes amis, mes, anciens camarades de classe euh, mes amis d'enfance à avons initié pour faire euh, vraiment une rencontre sportive de retrouvailles parce que bon on, le faisait avant donc ça dañ chaque dimanche du football anciens football sous nos pour euh, gérer la cohésion bàyyi na sport bi xel parce que tay ku gis euh, am na yeneen infrastructure yoo xam ne mu ngi koy def jëm si lamb jëm si basket jëm si football ainsi de suite donc tey ku xool euh, euh, arena bi donc je pense que ça c'est un joyau donc donc donc tey mu ngi créer une infrastructure de sport bi émerger donc ce n'est pas pas gratuit que le Sénégal va organiser les JO de 2022 c'est parce que nous sommes à un avancée extraordinaire sur les infrastructures sportives c'est la vision la vision du président Macky qui est d'un président vraiment de l'action li may wax wax rek man tey sama euh, sama objectif mooy euh, Thiès bi wax euh, jeunesse malsaine loolu dañ te je pense que maintenant on a changé de paradigme tey waa Thiès ils sont conscients surtout la jeunesse donc je les lance encore un appel Andak dal Andak yar parce que tey euh, dara mënuñu tax ñu avancer sans euh, une bonne sans sans une bonne éducation donc je pense que le développement d'un pays se repose sur sa jeunesse c'est-à-dire ay ndaw yu am yar. ay ndaw yoo xamante ne am na ay vertu ak ay valeur donc moom moo tax rek may gën a ñaaxaan ndaw ñi sport bi ñu ñoo ko moom donc activité euh, nawetaan ñu ngi lay ni ñaan au fair play moytu moytu violence moytu xiiroo moytu ngaayoo parce que tey Thiès euh, ko ñëpp benn lañ ku fa amul mbokk yëpp am nga fa xarit wala nga am fa kenn donc je pense que dëkk que ni loolu dafa nekk loo xamante ni euh, maa ngi siy ñaax nit ñi nous avons conscientiser surtout la jeunesse pour que nous euh, def non non violence au milieu des stades.